ci Sénégal maa ngi fii ci barabu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa di leen ñaanal jàmm ak salaam di ñaanal président de la république jàmm kilifa diine yi ñu yàgg fi loolu te wér bi ñu yàgg fi loolu te ñi nga xamante ne kilifa diine kilifa aada maa ngi ñëpp jàmm ci barabu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fii nga xamante ne nag fii la yonent bi tëdd maa ngi ñaanal ñëpp jàmm ci bi sallallahu alayhi wa sallam di ko ñaanal Sénégal yëpp képp képp kuy mbër maa ngi lay ñaan képp kuy mbër maa ngi lay yeneen ci bërëb bu tedd bi de sallallahu alayhi wa sallam alxaaji Abdul Aziz wa alxaaji Masata wa alxaaji Umar Sakho Balla Gaye barakallah góor waaw ah, maa ngi lay ziar di jox sa wàccuwaay bu baax a baax. ñu ngi la waaye ndax yàlla bu dogalee te maag si fii. alhamdulilah. ah yaa waral. sant yàlla ñu maa ngi lay ñaan lépp loo fi bëgg. incha allah loo fi ñaan. Ah, eh. yàlla na ko suñu def. gudd fan ak wér-gu-yaram rek laa lay ñaan. amiin incha allah waaye moom ñu ko bàyyi ci loxo yàlla. yàlla ngay wér jërëjëf jumaa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fas yéene def ziar nag ñaan Sénégal yëpp incha allah. sama xarit sama mag Lirou maa ngi lay ñaanu gudd fan ci barab bii nga xam ne ñu ngi fay dugg yàlla may la gudd fan wér gi yaram nga xam loo bëgg saat na yàlla la ko suñu borom defal jërëjëf liiru jaan mucc xéewal